borom Touba mës naa wax Serigne Sayid Mbacke ni ko mës ngaa gis ku mel ni Fadilu Mbacke mu ni ko déedéet ni ko mës ngaa dégg ku mel ni Fadilu Mbacke mu ni ko waat déedéet borom Touba na ko Sayid doo laaj sax lu Fadilu def ba xam ko doog may dëggal Serigne Sayid ne ko dimbali ma ci Mbacke Serigne bi ne li ñuy tuddee ak mbokk dooma ci gën a jege te Fadilu dikk na si man ne ma loolu ñuy wax ak mbokk jaay naa ko jëndee ko taalibe te njëg lay jox naa la ko àddiya ne ko mës ngaa gis ku def loolu mbaa dégg ku def loolu mu ni ko déedéet borom Touba na ko Sayid looloy dayab yéem